musique di fecc feccul de léeg-léeg nga gis nit tëju di jooy dafa bëgg léeg nit di bind stress wane que ni nit ñi damaa bëgg maa ngi belli belliwul bëggul waaye gis nga aji mhm. billaahi wallaahi tallaahi dana wax waxoon naa la koy leen man ëpp na at ci ginnaaw aji dana wax wala sama wax ji dangaa jàpp ne déedéet aji nag bu waxee ràcc yeeweeku aji dafa wax ba yeew boppam mooy wax ba yeewi boppam d'accord kon nag passeport diplomate boobu fa mu ko jaarale moroomam mhm. muy keneen muy moom muy meneen yaa seen Fall na jël yëf yi te doxal ci liggéey bi ñoom wallaay dañoo baax di wax rek nañ doxal sénégalais jox nañ leen yëf yi te doyloo nañ leen nañ doxal am na ñoo xam ne jëru sax ñu leen di tontu di leen wax lii yëg lee def naa ci lee defuma ci lee wallaahi baax na ñi ngi doxal baax na dijee d'accord euh, euh, c'est important Anita Diop itam. Euh, sëriñ bi faaw ñu jàpp ko capitaine Touré lancé loolu ah. kan ci Anita Diop kooku. yaa ngi doon gis Anita donc. ci internet ah, xew nag ci Anita Diop mooy site boobu nga xamante ne. non non xaw ma loolu laaj ma ci leneen loolu xaw ma loolu. non mais Anita Diop. ah xaw kooku nag. moo fi njëkk a wane ay vidéo Ousmane Sonko. waaw xaw ma ko nag xaw ma li may laaj nag. man nag bu ma xamul li may wax du ma xaw ma lu may xaw ma ko. may tontu xaw ma ko. bëggoo nel buggoo ci wax. non wallaay xaw ma li may laaj. d' accord léegi baal ñu jàll ci leneen. ayca Mimi Touré ak Mansour fay ñoom seen seen. sama yoon nekku ci xaw ma ko. lu ma xaw ma déglu. bu fekkee ma man dama du xam li may wax xam nga li ma bëgg nga wax man xamul xaw ma lu. Ah, nga war na yàlla xaw ma li may wax yëgoon nga ni euh, Mansour Faye dafa plainte Mimi Touré. yaa ma ko wax ma ko. waa léegi d' accord. Ah. Euh, euh, naka nga yàlla naka nga gisee. un mhm. milliard. waaw la Mansour Faye waaw di laaj Mimi Touré ndàmpaay. un milliard. waaw lu muy laaj Mimi Touré ndàmpaay. loolu ma ci gis. nan laa ko gisee. waaw c'est que man may laaj laa xamut. xaw ma ko wër na yàlla xaw gisuma ci dara gisee mën na ko man ko yor na jox sa morom. ku ne dafa laaj sa morom un milliard ku ne na jox sa xaw ma li may dem c'est que bu ma xamoon li may xaw ma li may laaj. doo ma waxaloo ci ñooñu man <laughs> laay Sénégalais baal ma kii du ma ful la <laughs> dégg nga fi may ci pièce boobu du ma ci daanu <laughs> chaque mu indi dara wala mu indi leneen du ma provoqué bàyyi leen daal boobu rek. man gis naa ne série de questions maa ngi dégg li mu wax non du ko def xam nga lu tax. puisque dafa am débat yoo xam ne wallaahi pour man dafa suufee te li may jàngale ci loolu di wax sénégalais yu bari nañ ko ignorer teg ko ne le te dox licence waaw. focus pour lan liggéey dëkk bi mais détails yi bu ñu ci adar di di tardel réew mi réew mi dafa war a man a dox Baye Fall yàlla da ngay focus ba tey ah! ba ci Amadou Ba ni mu demee Touba loolu aussi amoo ci euh, benn gis-gis Amadou Ba de sama benn kii woon na ma daa dem Touba na ma nee na du politique ma ne ko booba lay politique nag waaw <laughs> ah, Amadou Ba daa war a ba rek hmm. maa la ko wax de nit ñi ko topp ñëpp nañ ko gis na nit ñi man daal man daal man daal damaa jàpp ne léeg-léeg daam ñoo xam ne duñ xam li ñuy def waaye xaalis daa doy waar te Amadou nag xanaa war naa xam ñi ko ñu ànd ak moom te yàlla tax ak ñu ànd ak moom te <laughs> loolu na koo mën xam. ñu bëri àndu moom. ah waaye àndu ñoo Amadou ba poosu àndal ah fi nag bu fekkoon di man ngay kii man léeg-léeg budget xam nga léeg-léeg damay jékki-jékki dugg ci mbiri nit am lu ma ciy xool. d'accord waaye nit ñi am nañu fóore am na ñoo xam ne. yàlla xam na ne de buxuma la Amadou Ba seen bopp képp lañ fa nekkal. yow de yaa fi seetal seetaloon Amadou Ba ne du ma du ne. leerut ba ma ko génnee dañu bari wax na ah sa waay day fallu bañ teg seen première dame ak yëpp. daa waxoon loolu de. maa moo am ñun yàlla ak ñuy suturaal ci luñ bëgg a gis di ko gis ci luy jariñ réew mi nag mais am na détail yoo xam ne mérité wuñ sama seet du ma leen ko jox. merci beaucoup. am na ñoo xam doo leen seetal. mukk du ma ko def man ku dugg réew mi du ma la seetal. Ahmed Suzanne Camara dañu ko jàpp Abdou Mbow nee nañ ko libéré parce que otage politique la. otage politique. waaw euh, am ah na wax li li kii wax. Jusaan wax ba xam. li wax Jomaay. Mhm. na ko Abdou Mbow wax. bu ko waxee boo ñëwee fii ma tontu la. yow laay déglu de. ok mhm. dama fi ñëwoon fan man sawaru ci ñi may tontu laaj ma ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi nin jotee ci réew mi metti ñu war a fas yéene liggéeyu réew mi ëllëg bi Sénégal mu jëm loola ca laay gën sawar a wax ci ay ñuy pelantanteeg yàq nit ñi ci coow ak lu amul benn bopp amul benn genn di tarder réew mi depuis ba tey ñu ngi wax rek di bu ma bu di loo attaaya toog ku ñëw ñu ne nañ ko may liggéeyu buñ ba tey réew yëpp di dox ah boo tukkee gis ñu ngi dem ak ñëw ñun ñu ngi ci Barthélemy Diaz dañu ko ignoré ah euh, moo ignoré boppam li ma la wax rek gars yi ñooy wax ba kenn ignoré wu ko moo ignoré boppam jomaay daf ko ignoré ah kon wax bi mu ñëwee ba jomaay ignoré wul kenn wër na yàlla jomaay la moo fii ku dégg li ma wax procès bi ni tay wax ba dugal ci boppam waaye ni tay wax ba génn ci boppam. d'accord aja ñu dem. nee dafa am ñoo xam ne mérito wuñ sa seet. waaw ñen ñoo mérito sa seet nag. waaye li nga xam ne. Mm. romb nañ fi ñëpp daal ne ma sëñ Mara yaa ma doy ci lii kooku laay seetal ak xam nga ñan. Mm-hmm. ki nga xam ne wóor na ma ne dangaa ngaa bëgg réew mi. ma génn def ay mbir na la nangam ak nangam ñu mën a doxal réew mi ndax yàllaa ma may loolu. te ci laay jàppale ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel man dijje maa ngi lay waatal ci yàlla suñ borom képp ku nekk senegal bi seet maa la dàq seet billaahi wal quraan waaye nag fëgguuma sama dënn ba tey ndamuwuma xam nga lu tax daan naa la wax naan la gars yi dama leen a gën xol di kaf di la wax loolu yaa ngi koy fàttaliku. Mm-hmm. gis nga liggéey bii may liggéey ku yàlla li tuuti nga xam li ci nekk ak fi mu ci jëm dinga xam ne caaxaanuñ ci te dama leen a faral di wax naan gis nga nit ku nekk ci àdduna yii da koo war a xam te maa ngi ciy soññewaat xam nga mooy lan. mooy nit daa war a xam saraxam nit daa war a xam couleur nit daa war a xam nga baal ma ëllëgam ndax nit a ngi bokk ak nit nday ak baay bokk fu ngeen nàmpe bokk lépp lu ngeen di def. kii di doxal tey mënoo doxal. ok est-ce que xam nga li ma bëgg a wax. d'accord lépp nag sarax da koy tijji seet da koy tijji te léeg-léeg nga gis nit ku jàmbaare lool gën a sonn ci àdduna te mënta am dara nit koo xam ne du génn këram lépp di ko fa fekk. couleur dafa am importance. ich àdduna lépp couleur la couleur day wax am na couleur yoo xam ne boo ko solee lépp looy wuti doo ko am am na couleur yoo xam ne boo ko solee. nga baal ma euh, ay jéeya rek ngay def. da ngay ne ay telos. waaw waaw loolu moo am nit dafa am couleur. li ma la waxoon ci per yi ci jaaro yi. ay xaynul xamar xaddiidul siinu siinul xaddiidi ñëw ci feuille rouge bi léeg nga gis nit koo xam ne day takk ponkalum jaaro di dox fekk day delloo boppam ginnaaw ñu la amee ci yére mais nit ki boo seetloo ba xam sa sarax xam fi nga war a jëm xam li ngay sol cheikh bi nga baal ma sa adduna bu am ay jafe-jafe loolu mënta ne léeg-léeg nag nit ngir gàllankoor ko ci wàllum seet nit gàllankoor ko ci wàllum ñaan yàlla am na ñoo xam ne li gën a jafe laa lay wax tey xam nga mooy lan jóg di jóg di jóg di ne damay ñaan lu man damay soññ nit ñi xam nga lan même bu ko sa maam dee def wala sa baay wala sab xarit na la ko defal